docteur jàll Diop mooy suñu invité tey nag ñu euh, quand même dalal ko ci bés boo xam ne ñu ngi koy wax sànq euh, Sénégal mooy fàttaliku doomam mais c'est la famille Diop ak euh, ki nga xam ne mooy son frère Blondin bis ni tey lañ ko faatoon cinq décennies après parce que c'était le 11 mai 1973 euh, docteur Diallo Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal et puis di bokk di bokk ak yow fàttaliku bi parce que quand même Blondin moom fi mu toll finalement c'est un patrimoine Sénégal yëpp ñoo ko bokk ñu ngi lay nuyu docteur Diallo Diop maa ngi leen di delloo nuyoo di leen gërëm. ci mhm. invitation bi. ñu dugg si waxtaan bi. Fatou wax na ko docteur yow rakk nga ci ndem si yàlla Omar Diop Blondin dina dellusiwaat ci jëmm ji mais bisu tey bi 11 mai bu ñëwee lan lay def si yow. ah lu rëy lu rëy ndaxte Omar euh, suñu taaw kër la woon euh, gàtt fan gàtt ay fan lool te bésu fàttaliku la daal waaye bés bi moom mooy genn wàll xarnu. ci bu mu dëddoog léegi muy juróom fukki at te li tax mu gën a am solo ci ñun maanaam ci rakk Omar yi maanaam suñuy wayjur euh, dëddu nañu mooy dine dañoo fas yéene euh, sulli euh, dossier wu àttekat yi ndaxte umpalewu leen ne biñ koy bi muy gaañu dañ ko waxee noonu mm-hmm. bi muy gaañu papaam Mmh. docteur Blondin Diop daa déposé plainte tribunal ne jàpp ne dañoo boom doomam bëgg xam nag dëggan accident la wala dañ ko tey dañ ko waajal yàlla def euh, doyen des juges d'instruction ba euh, dem si yàlla euh, juge Moustapha Touré. Mmh. premier noir indigène doyen des juges d'instruction bi mu gisee dossier bi def liggéeyam maanaam reconstitution des faits ci kaso ba kaso bu Gorée ci kanamu procureur de la République bu doon euh, jarbaatu Léopold Senghor. Mm-hmm. dem si yàlla Basile Senghor. Mm-hmm. ah bi mu defee liggéeyam ba pare daal euh, digganteem ak yàlla mu jàpp ne Omar ni ñu gisee mbir mi mënul woon lañ xarot mënul woon rey boppam maanaam. ndaxte dañoo jël benn détenu droit commun bi xaw a am doole ak yooyu ne ak jox ko darab bi ne ko am na jéem ko ñetti yoon tële. ci la ne ci d'ailleurs film bi ñuy génnee tey te nga xam ne mu génne na woon ci FESPACO du bu bi bu daaw jéeg. Euh, juge boobu balaa muy dëddu jot na cee wax ab seede. Mhm. ñun nag ci seede boobu mu wéyal. ni ñuy sukkandiku ngeen ñaan. maanaam vous avez des éléments nouveaux. un fait nouveau. c'est la conviction du juge du seul et unique juge. qui a eu à connaître du dossier ndaxte bi mu jógee gore ba delluwaat ci bureau dafa daal di inculper alkaati yi nekkoon euh, de service ah garde pénitentiaire parce que du woon ay ay GMI la. d'accord est-ce que vous pouvez nous raconter quand même les derniers instants de Omar sur terre ñëw ci. derniers instants Omar yi kenn mënu ko nettali man boobu maanaam famille bi xaa daa ngeen ko rendre visite ca prison man di kii dugg la ma fekk. waaw yow la bëggoon waaye sama rak sama rak bi ñu jàppandoo ak man dem si yàlla Mohamed ñu koy woowee Pape Ndiaye euh, moom seede na ndaxte moom ak Omar rek ñoo nekkoon ci kaso gore boobu mais moom si ay nettali maanaam ci seedeem la sama pap sukkandiku ngir déposer plainte am Pape Ndiaye dafa nettali. jaajaari Omar biñ ko dóoree bi mu xëm ak yooyu infirmier bi ñëw ak yooyu Pape Ndiaye daal moo moo moo leen weer ni géej ci la sama sukkandiku mais yàlla def bi juge bi inculpé alkaati yi fa nekkoon ba mu des benn te kooku bi ñu def ñeenteelu fukki atu Omar mu ngi fi woon mooy ki joxewoon woon interview quotidien ba mhm. Neere Faye dem si yàlla Neere Faye Euh, moom rek moo wuyuwul juge ba ñu ne dafa demoon xaw ma congé wala dafa tukki Espagne wala Côte d'Ivoire jotu ko balaa juge bi juge bi jotu ko inculpé ndaxte balaa muy dellusi si ba di wuyu ji juge Touré fekk nañu yëkkati nañu juge Touré. Euh, teg fa beneen juge. Mhm. bi nga xam ne. Euh, franco bénino sénégalais la woon. Mhm. Elias Dossé. bon parce que dañ na il aurait reçu la visite de Jean Collin non. loolu ay ay léeb la. Mhm. waaw amuñu ci finde yu wóor daal mais recoupement yi. tax na man loolu xoromal ma ko faydaalu ma ko et amul solo benn yoon la Collin ma sa ñëw suñu kaso boobu ñu nga foor bee mooy bi ñu jàppee ñoom Omar ak Paloma ko visite officielle première visite officielle de Senghor au Mali après l'éclatement de la fédération de fekk daaneel nañu Modibo militaires yi Moussa Traoré ak ñoom it euh, Cheikhoro Bagayoko fallu ci la Senghor dem di jubóowaat ak Maliens yi c'est-à-dire avec le régime putschiste. Hmm. bi ñu jógee Bamako au lieu ñu mu dellu këram Collin daa ñëw directement formé fekk ñu fa boobu ñun ñoo nekkoon ci benn wet beneen wet gi ñoo les étudiants. du syndicat. ñoom it bàcc lii mbay jaak ak yooyu ak ñoom it nga. Ndokro waaw euh, ñu bari ñu ci bari xamuñu leen sax. Mm-hmm. comme ñoom sax Saaxewaar Diop euh, dem si yàlla Alf Seynou Cissé ak ñoom seen. Mm-hmm. Euh, ñoo nekkoon de beneen côté ba. voilà docteur yow. lu tax nga jàpp ni yëf yi ab mensonge d'état la concrètement ci lan nga ko teg. en fait ñun loolu la xalaat. Mm-hmm. waaye mënuñu ko daganal fii ak yoon deful liggéey mm-hmm. nous réclamons la vérité et la justice pour Omar. képp ah, mais am ngeen ay indice quand même yoo xam. ah mais indice bi mooy lii Pape Ndiaye Baye seede wu Pape Ndiaye. Mm-hmm. benn ak dossier wu dem si yàlla juge Touré. m'y inculper le gardien-chef le chef de cour et les trois autres gardes pénitentiaires présents te duñu doon ay gardes pénitentiaires ay GMI yu jógee woon Thiès. Mm. le collin jël indi leen ne ñii c'est des éléments dangereux euh, bu leen wax ak ñoom mm. mën nañu wëlbati seen euh, xalaat mm-hmm. bu leen leen woon ginnaaw mën nañ leen bett dal seen kaw et cetera donc ils ont commencé à nous violenter mm-hmm. cinquante ans après est-ce que docteur Diallo am ngeen ci yaakaar mbir mi am. am baax a baax a baax a baax hmm. parce que xam nga àdduna day dox jamono di soppeeku. effectivement te fi mu ne nii dafa jot. Hmm. dafa jot déjà suñuy waajur euh, dëdd nañu. Hmm. Euh, suñuy genn wàll euh, njaboot tamit. fukk ak benn lañu woon juróom benn rek a des. la famille et puis. et puis. Euh, xaw ma da ngeen seetlu ngeen ko mais balaa ñun ñuy am fitu sulli mbir mi. dafa fekk ndeyu kii ndeyu mi léegi Senghor wàcc ki mu fi teg pour mu wuutu ko kooku tamit abal ñu. ki nga xam ne moo doon euh, euh, sengoor moo doon yàllaam ci wàllu politique yàllaam bu ndaw ci wàllu politique di Ablaye Wade kooku tamit abaloon nañu bi ki ñëwee. te ñu koy tagg ne moom fekkewul colonialisme donc li ne né après l'indépendance donc il est libre ak yooyu ci la ñu ne waaw léegi ci ñeent fukki at yi nañu yëkkatiwaat mbir mi ñu may ñu loolu mm-hmm. mooy plaque bi ñu géntee ci néeg bi nga xam ne fa la Omar gaañoo maa ko fa jiitu. léegi musée la bi ñu may yóbbu Kédougou lañ fa dugal Omar léegi musée la. musée la waaye mel nañu loolu am na fa plaque. waaye duñ duñu wax lépp daal. Ah, <laughs> mais balaa sax ñu jot plaque bi. <laughs> Eh, dañu bëggoon xam lan ngeen di bind si seen plaque. maanaam kenn sañu la tudd Senghor daal ci ay ñaawteefam ci réew mi ba nga nii xëj na su fi mag Macky jógee xëj na bu boobaa dinañ mën a wax dëgg maanaam ay ay ñaawteef yi fi Senghor def. docteur cinquante ans après. oui sulliwaat euh, maanaam dossier bu nga xam ni pratiquement ñi ci impliqué woon daanaka ñëpp génn nañu àdduna lan ngeen di euh, rechercher à travers ça li ñu wax rek mhm. vérité dëgg mhm. ak justice atte bu jub maanaam suñu yëfi suñu leeralee mbir mi ba wane ne Omar xaruwul ndaxte mënul woon a xaru dañ ko boom mhm. li ci des mooy dañu ko tey boom ko wala nañ ko faagaagal wala accident la suñu xasee ba xam dëgg gi maanaam li fa xew ci bés bés ba boobu naka la demee mm-hmm. li ci des yoon a ngi dogal mm-hmm. mais euh, yaakaar naa ne euh, Omar ab tegtal la mm-hmm. ndaxte ñu bare bari dee nañ fi ci ay yu lëndëm te ba léegi kenn leeralul mbir tey la wàlloo gën a aay léegi du par benn benn la ñuy boom ñi nii mais par ay juróom benn ay fukk ñaar yàlla boobu dem ci ay téeméer. Mm. léegi am na fi sax euh, suñ basé ci actualité bi ñaari euh, FDS yu fi disparaître ba léegi kenn xamul. mais loolu. ci yan circonstances. Euh, ak nu mu demee ah, ah. <laughs> man en tant que membre du groupe médical d'Amnesty International am na xam naa ci dara. Mm. ak Makabu. man kam mais léegi nekkatoo amnistie kam yaa ngi yaa ngi. je suis toujours du ah. président du groupe médical mm. d'Amnesty International. Mm. je traite que les dossiers médicaux. mais au plan politique. Euh, RND ah. bi nga yoroon fusion na woon ngeen ak Pastef. ñu ngi Pastef 100 pour cent. Mm-hmm. waaw mm-hmm. waaw. léegi buñ euh, est-ce que dina yomb quand parce que 50 ans après nga ne dañuy sulli dossier te ku ne xam na ni déjà procédure judiciaire yi ni muy yéexee fii ci réew mi mais aussi élément bi nga ne lu bees la loolu nga jàpp mais est-ce que dinañ leen ko faciliter. mais man awma yaakaar ci atteew ñi fi toog. ah kon kay jàllale suñu dossier boo amul <laughs> yaakaar keñ ah parce que bañ ci am yaakaar am cee yaakaar yëpp. na yëf yi jaar yoon. loolu la ñuy ñaan te it ñoom ñoo fi toogagum waaye xam nga du bi abadan. li ñu li sama papa defoon 1973 ci la ñu sukkandiku ngir sulliwaat dossier y avait une procédure en cours et am nañu ab kayit. boo xam ne juge bi wuutu. juge Touré amul woon ah. jotuñu ci procès. gis nga bi juge Touré inculpé alkaati wu gore yi. Mhm. ëllëg sa lañ ko yëkkati. xam nga ma indi fi koo xam ne il a mis son coude <laughs> sur le dossier de Omar c'est une tradition. Mhm. dégg nga dix-huit mois après. mu génnee ordonnance d'incompétence xam nga lan mooy ordonnance d'incompétence. mooy lan. dafa bind tontu sama papa ne. Euh, les subis par Omar Diop. donc loolu xam nga daganal na ko. Mhm. ci enquête toujours les sévices subis par Omar Diop. n'ayant pas fait l'objet je vous parle français parce que ci tubaab la ñuy jaar pour <laughs> gëlëmal nit ñi nga foog ne dara la fekk na du tous euh, les sévices subis par Omar Diop n'ayant pas fait l'objet d'un certificat d'incapacité totale temporaire de 21 jours mhm. nous invitons le plaignant à se pourvoir devant le tribunal de simple police c'est-à-dire le juge de paix et donc la correctionnelle est incompétente pour connaître de cette mort Alors c'est notre avocat, vous le verrez dans le film, notre avocat dit oui. Il n'y a pas de certificat médical, mais il y a mort d'homme. C'était qui l'avocat euh, À l'époque, notre avocat, c'était Maître Babacar Niang. Mmh, mais été... aujourd'hui, notre avocat, c'est Maître Dieng. Qui a été candidat à la présidentielle, <clears throat> Maître Mbaye Niang. Ouais. Qui est même un membre fondateur du RNDC, RND, le... mais qui est aussi un membre fondateur du pays. Mmh, ouais. Mais bon, ça c'est l'histoire politique. Pour l'instant, on est sur l'histoire judiciaire. Mmh. Euh, euh, cette ordonnance d'incompétence-là, nous l'avons retrouvée. xam nga boo tax archive baax. mais gis nga bi ñu ko wanee juge Touré xam nga lu mu wax mu ne ah. lii de jaaxal na ma xam nga un juge un collègue ne critique jamais un collègue devant des non collègues. mu ne mais il faudra que l'on me dise quel acte de procédure il a pris avant d'invalider de lever les inculpations que j'avais faites. il n'a pris aucun acte de procédure <laughs> en tout cas qu'il y ait de traces écrites dans le dossier hmm. or la nañu ne la parole est libre mais hmm. mais amul woon autopsie amul woon certificat de autopsie autopsie ah ouais ah d'accord mon papa a exigé l'autopsie il a assisté à l'autopsie hmm. et il a fait un contre-rapport ah, d'autopsie contradictoire de celui du euh, non pas le médecin légiste parce que le médecin légiste de l'époque Euh, euh, euh, il était en bisbille avec Senghor donc Senghor l'a écarté il a pris un autre compatriote africain non sénégalais français d'origine daloméenne on disait à l'époque mmh. béninoise mmh. et c'est celui-là qui était anatomopathologiste et non médecin légiste qui a fait l'autopsie et le rapport contradictoire de mon Alors, papa. docteur tey bu ñu waree euh, sorte d'état des lieux euh, ban ban information bu mujj euh, ngeen jot a am ci ci ci dossier boobu par rapport à la le fait nouveau. Mm -hmm. c'est l'avis immortalisé par l'image de seul et unique juge de magistrat instructeur doyen des juges d'instruction. Mhm. qui a eu à traiter le dossier. Mhm. et qui a en son intime conviction mhm. a pris des mesures mhm. d'ordre judiciaire mhm. en inculpant des gardes-choum c'est pas rien ouais. D'accord mm-hmm. Et cet homme-là, mm-hmm. on doit lui rendre un hommage particulier parce que. docteur c'est un wolof hein. oui ba tey ma ne ma ne <laughs> amel nañu njukkal. juge Touré war nañ ko sargal. yal na ko yàlla yërëm. amiin ndaxte. wane na jikkoom. ci liggéeyam. yemul ci dossier wu Omar en tant que doyen des juges. mais bi mu demee Sénat. war a jëndante élection wu Abdoulaye Wade. xool leen ni mu mujjee dañ ko dàq. mais docteur euh, Omar naka la mën a inspiré jeunesse bi. ah ci ay anam yu bari ci su gis-gis bu gàtt. Mm-hmm. waaye balaa muy mën a euh, don royukaay. Mm-hmm. <laughs> ñun ñi xam ay jaar-jaaram ak ñu fi bàyyi donc ñun léegi loolu lañuy was fas yéene ci genn wàllu xarnu bi bi ñuy sa màggal dañuy déposé waat euh, di euh, procédure judiciaire auprès euh, de la juridiction compétente dès lundi prochain suñu paree ci màggal ci màggal gi deuxièmement diffuser les films yi nga xam ne euh, day firndeel ay jaar-jaari Omar. ak naka lañ ko naka la gaañoo. mais surtout. te loolu guléet dañu fas yéene génne ay bind Omar ndaxte Omar jotoon na bind balaa muy dudd. ay ay daa bind teg. donc ñun dañoo dajale ay mbindam. yoo xam ne xaw na xaw na dagg xaw na dëgër daal. maanaam mm-hmm. xaw na. am maanaa bokk nañ ko waxee noonu. mën na am njëriñ. ci suñuy rakk ak i doom. mémoire quoi. alors docteur yaa ngi doon wax sànq euh, ci lu jëm ci wàllu euh, dossier politico-judiciaire tey la. Mhm. tey la gën a yées. Mhm. loolu foo ko teg alors qu'à l'époque quand même des des actes comme ça. Euh, c'était assez exceptionnel euh, euh, surtout euh, li nga xamante ne moom mooy mouvement révolution yu amoon jamono yooyu mai 68 Euh, ak li fi jot a juddu après une quarantaine de morts quand même. Euh, est-ce que mën nañ wax na ne quand même que tey la mbir yi gën a yées. mais soo gisee boomu mel num jëmm muy jëmm Omar. li mu jur. ci réew mi. ci jamono yooyee de. parti unique. tout à fait 68. ah 60 73. c'est pareil soo gisee li mu jur musiba yi mu jur fii ak bitim réew. ñu bëri umpale nañ ko mais par exemple l'ambassade du Sénégal le consulat du Sénégal à Paris a te dynamité à la suite de la mort de Mar. d'accord loolu ñu bëri xamuñu ko. pour ça il faut lire Le Monde. voilà. Euh, euh, léegi docteur ah, question à laquelle j'ai pas répondu. ci Marcel Chérif dafa ci question ah. oui mhm. euh, su ma nee tey la wàlloo gën a aay. Mhm. bu ci jamono ji néew yi du par benn duñ leen kenn du leen lim par ci ci sa baaraamu loxo. sa ñaari loxo ak sa ñeenti sa ñaari tànk yi doyul pour lim ñi ñuy boom ci benn manifestation wala ci ñaar loolu mooy euh, doxalinu maa tey bi nga xam ne mooy yàq Afrique yàq àdduna si parce que yemul ci Afrique. soo dee seetloo euh, yëngu-yëngu yi fi mu ne nii. fépp la très bien docteur avant question Chérif bi bëggoon naa nga defal ñu benn témoignage quand même ci Omar Blondin Blondin pardon. Mhm. Blondin Diop. léegi Blondin ci par ci parcours am foofu laa jëmoon Chérif euh, gis nañ ne il est il était extrêmement brillant <coughs> il était ambitieux ñu ko doon wax sànq euh, tey boo ñu doon wax raconter l'histoire Euh, de votre frère peut-être en quelques mots lan nga ñuy wax turu Blondin bi fan la jógee. <laughs> alors euh, xam nga ci cosaan. Mhm. Euh, si li ñu wax de ñun si waajur yi lañ ci ñun ñaari pàcc la ñaari tànk lañu ci Afrique. Mhm. benn bi ci ndar la ay doomu ndar lañu. Mhm. Ah, beneen bi mooy si suñu ay maam yu góor kenn ki sant Diop keneen ki sant waaye beneen pàcc bi si suñuy ndey ñi ñu jur. Mhm. Euh, kenn kii xaasonke la maanaam ay pël sant Diallo yu yu fàtte seen laak seen làmmiñ mhm. di làkk bambara ak sama yaayu yaay ki nga xam ne moom bambara pur la sant Coulibaly. Mhm. Blondin bi nag soo déggee ndar. ay Dupont ay duran ay Dupuis <laughs> ak ñoom ay Blondin ak Guillabert nga xam ne c'est la plus vieille colonie française d'Afrique. trois siècles et demi encore une fois alors que la Guinée n'a connu que 60 ans de, de colonie et tubaab yi dañ fa bàyyi ay reen hmm. vous savez bien que après la conquête d'un territoire le premier signe de prise de possession du territoire c'est de s'emparer des plus belles femmes du pays pour les conquérants et donc ça laisse une progéniture. la famille Turpin mais tamit mënoo leen lim mais am na fu ñu dëkk fu ñu cosaanoo muy ndar hmm. la plus vieille colonie française d'Afrique et où la statue du conquérant tombe mm -hmm. par un trouble du climat mm -hmm. on la remet en place le lendemain docteur sama question bi xam naa faati après yaa ma daa xafale ma ñëw toog jëlaat <laughs> jëlaat sama place <laughs> euh, mais li indi euh, jëye ji nag il faut ñu taxaw taxaw seetlu si mhm. maanaam les causes te yéen mhm. mën nañoo jàpp ne am ngeen ci responsabilité ndax ku lu toll ni président France surtout ay jamono Pompidou am visite d'état fii ci Sénégal ngeen di mën ay activité subversive hmm. ne da ngeen di koj cortège bi ay cocktail molotov est-ce que aussi docteur loolu c'est responsable aussi waaw centre culturel France ngeen taal loolu aussi jëye la seen frère dafa ñëwoon ngir sauver parce que moom fekk ko fi sax dëgg la dëgg la waaye xam nga ab gone sañ na matadi dëgg la mu nga noonu ku dul juum amul dëgg waaye da nga war a di ay jàngat ci say juumte mm-hmm. ngir bañ leen bañ cee daan bañ cee mm. daanuwaat. kon su amaat su amootu du ngeen ko defaat. wax naa ko publiquement. regretté nga sama sama dama ko wax ba ñëpp dégg si waaye ki ma ki ñu condamné woon à perpétuité avec moi di dem si yàlla Ibrahima pay di Jacky. ah mm. fils de Alassane Paye. inamovible président de la commission de pèlerinage de la Mecque sous le temps des colons fii ci Mbott <coughs> euh, nga plateau Dakar Jacky ci ma dafa ci mere. mu ne ma ko na nga xam moo ne tuub loolu mel ni da koy rëccu ma ne ko mais su li ma ko waroon a defaat du ma ko defaat ndax mos li musiba yu mu yore mu ne loolu juum nga juum nga booy sama rak juum waaye moi je considère que dëgg daal moo war a wéy mais est-ce que euh, boobu tey jii tax na nga comprendre euh, France dégage mais évidemment li li li ngay gis yëpp fii ci Sénégal ak ci Afrique mhm. euh, day daganal suñu jumte bii may wax day daganal suñu xeex bi ñu doon xeex ndaxte tey la wàlloo gën a aay dégg nga ma te euh, euh, tey la tubaab yi gën a noot Afrique ah te africain yoo ko mën a faj. mais euh, docteur xëy na bon beneen question bi est-ce que ce regret bi aussi. oui duñ euh, en cause. parce que waaw heure question mooy. ñu ngi ko doon wax sànq yow mm. Pastef nga bokk. dégg na le leader quand de ce parti. muy woote ah, ci li nga moom tuddee ah, ah désobéissance civique. ñu gis ba affaire cocktail Molotov ñu ngi koy tudd Sénégal ba léegi xeex combat yi daf mel ni yéen surtout extrémisme bi nga xamante ci ngeen di demee ba léegi quand même mi ne yaa ngi regretté personne. Ouais. 50 ans plus tard est-ce que c'est pas ça pas problème finalement. non non ça ne pose aucun problème et je vais répondre en wolof. parce que mhm. c'est le wolof. Mhm. Euh, xam nga euh, ci sa doxalinu àdduna mhm. rawatina ci doxalinu mbooloo muy politique euh, am na lu ñu seexante jàngal dafa ne. benn fexe leen ba. nekk ci seen bon droit être de toujours dans votre droit ngeen sax ci maanaam li ngeen di ñaan wala li ngeen di xëccoo. mu doon loo xam ne ñëpp mën nañ ko dégg mën a seede ne lu juble lu baax la mu ne su loolu wéyee ngeen pare pour dem fi leen yoon woo ngeen wuy ji. Mhm. épuiser les procédures légales. mais maintenant vous êtes dans votre bon droit tout le monde le vous épuisez les procédures légales tout le monde le constate le matin il vient passer sur votre bon droit et sur les procédures légales pour mmh. vous imposer la force bu boobaa loo leen def lu ñu leen a jaay jënd leen très bien malheureusement juste une dernière s'il oui, vous plaît oui, oui. s'il il est il Marcel s'il judiciaire à vous ndaxte yaa ngi doon wax na ne sànq perpète dañ la condamné woon euh, ban année nga mujju génn ak la ban ci yan circonstance ils nous ont libérés. Hmm. moins d'un an après la mort d'Omar

ce sera la vérité historique sera rétablie mmh. ce n'est qu'une question de temps nous ne sommes pas pressés si nous ne le faisons pas mais nos enfants le feront Alors, si nos enfants ne le font pas nos petits-enfants le feront merci beaucoup docteur Diallo Diop on a non euh, restez avec nous on a une belle surprise ah ñu bàyyi leen <laughs> ngeen on découvre la la surprise ensemble ak téléspectateurs yi <laughs> ñeete mbaaba nañu fomp rongoñ ca Umar Jóob jàngal ndaw gi mooy li ndax jaasi du fi genn mbar xanaa salaka jar ratalawu paletale xamuñu bëgguñu sañuñu géeju fen waa ngi ni di baawaan yàlla mi ñu tiim ñàkk duñu tax miim <laughs> lii doole fasu naar wu góor di taaru jongoma jumat loolu lépp dafay ruus do amul kurus wande durus ceddo amul kurus wande durus durus durus amul kurus ceddo yi déglu leen yuuxu suufu Sénégal ànd ak yuuxu sàllu ba ca gore sama pàttaliku di metti di naqadi sama làmmiñ di sax deret boom nañu Umar Diop ni ñu boomee waa Ndeer ak ñi ci caaro yi géej gi gànnax gi ŋaax ngelaw liy sab di sab ni rab asamaan si di dënnu ni kënu niir yi di xaacu ngir di naqaru ma lamboo leer jaar sëg ya junni umar dékki dëmm yeey wër sëg ya di xooj sëg ya ak seeni der sëg yi salliiru sëg ya di salliiru ma jaar sëg ya junni umar dékki calaa waa ndeer ak ña sa yi géejoo fen waa ngi nii di baawaan yàlla mi ñu tiim ñàkk du ñu tax a miin warabe warabe warabe warabe jaru ko warabe warabe warabe warabe jaru ko merci beaucoup <laughs> Cheikh Guissé merci c'est gentil hein merci d'être venu sur ce plateau euh, on te remercie en tout cas amuñu sa fay ay ndaw lañu waaw yuy ci Omar war a jàngale li fi mhm. Omar bàyyi mhm. donc am na ci musique mhm. am na ci politique. am na à l'université. et on est toujours prêt. partant nous sommes des jeunes. derrière Omar. pourquoi mu inspiré la te li ma ci inspiré. mooy euh, combat bi à l'époque euh, avec euh, les associations sportives carrément mhm. culturelles et puis doon làkkatu à l'époque parce que dañ doon dañ doon bàyyi la sa nga bind article mhm. dañ leen doon note di leen boom la bind sa article sax à l'époque mhm. doo ñemee signé sa tur keneen ngay signé <laughs> li ma woy nii El Hadj Momar Samb moo ko bind ci poème bi Omar bi Omar Fato Mm-hmm. léegi nag Seydina Issa Wade. Mm-hmm. reprendre ku ci woy woy boobu laa reprendre de Seydina. macha allah donc dama déglu Seydina. Mm-hmm. ci Seydina laa découvrir Omar. dem jàngi ko ba xam ko dem mm. seeti waa kër gi xamante ak ñoom mm. mais c'est boo xam ne mm. sénégalais yi dañ ko war a xam effectivement africain africain yi xam ko ah, adduna bi yëpp xam ko parce que boo xam ne tey bu fi Omar ne woon tey mm-hmm. Sénégal du doxee ni muy doxee merci beaucoup jërëjëf Cheikh Guissé euh, bu Guissé frère nul ñu euh, euh, waa frère Guissé yëpp voilà jibi yëpp merci beaucoup ak waa ak waa Yara mais am na ñuy ñëw di làkkatu di seetaan si de waaw am na ñu yow làqatu di seetaan si kon ñu ngi ci gannaaw. <laughs> les waxul quoi. aywa léegi léegi ñaari yéen kaayu groupe Futurs Médias merci beaucoup. Diallo Diop euh, je rappelle également que euh, borom xam-xam la gis nañ ko également ci yeneen combat lu ci mel ne euh, ndono li fi Cheikh Anta Diop bàyyi léegi léegi l'observateur ak record. macha allah c'est un virologue. Hmm? un virologue docteur.